VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pipes et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 24 VIP People DAL. Vous les est-ce que fu situation bi toll jamono ji tëj yi tamit parce que gis nañu Cheikh Bara Ndiaye tam teg nañ ko loxo. ñu ngi xamal dañ koo yéex a jàpp sax euh, maître Ngagne Demba tam. lu ñu def xam na nit bu deful dara kenn du la tëj. man kenn tëju ma yow kenn tëju la kii kenn tëju ko mais mais ah, ah, ah, situation oblige dañoo bëgg léegi daal dëkk bi ku lu la neex waay def kon daal naa ñëw fii saagal ba sama xol seen dem sa yoon kon yow waroo maa plainte mais mais mais ça, tam gis nañu. il faut qu'on arrête de mais. parti parti bee tam day dañuy gis ni ñuy ni ñuy ni ñuy defee ci kaw. Euh, nan lañ def. mais mais mais buñ ñu par exemple Anita Diop page bobu non gis nañ ci ay ay ay ay. nañu porte plainte Anita Diop. fi ku fi jàppale la porte plainte. parce que day yor yo dama né la nañu porte plainte Anita Diop nañ ko porte plainte. c'est facile. comme ñun ni ñu amee fas défendre Ousmane Sonko ñom nañ ñi bëgg defanteeg Anita Diop nañ defanteeg Anita Diop. man pour man c'est simple ah tange bés boo leen diffamé ngeen nit ki da leen di porte plainte diffamé leen ngeen xool ba xam nit ki da leen di baal xanaa au moins comme li fi xew Sénégal ñu koy waxtaanee ci suuf di ko négocier nañ porte plainte côté bee lañ tëj parce que côté boobu ñoo def délit coté bee lañ tëj parce que côté boobu ñoo def délit ñoo taal ay nit ñooy saaga ay nit ñooy woo ay nit man chaque jour ñu caricaturé ma su ma meloon ni ñoom tëj lu leen bés bu yàlla sàkk bu ñu paree ma wan la ko ñu may caricature di ma def ay photo yu bon a bon li ma wax du n'importe quoi li ma wax du n'importe quoi nañ dem ba bu plainte dama ne la kuñ fi tëj da def lu ñu war a tëj ku def lu ñu war a tëj tëjuñu leen question bi nga xam ne fa da nga ma laaj bi nag jalaw bi jaam ak salaam doo nga fa amoon li ñuy naqarlu mooy mhm. joxuñu parole jigéen yi ñu war a jox wala lu doy ci jigéen yaa nga fa woon toog maa nga fa woon toog jeunesse bi ben nit mo leen jëlal parole nañu bàyyi paa yi ñu jox parole toujours les mêmes têtes il faut arrêter avec ça je peux comprendre ngeen jox Khalifa Sall parce que mo ne won ñom ñoo nekkoon di critiquer je comprends ngeen jox PDS mais attends le reste quand même il faut ngeen xol yeneen têtes yi ngeen jox leen on peut pas toujours avoir les mêmes têtes mais dialogue ba dara am foon président Macky Sall il était relax unité serein ku war a wax nga jog wax yo so soo nga nuyu ko mu kafa yow reen yow dañu bëgg max Macky Sall rek di fas kanam li wax dara ay ci dafa ne da ngeen may ñaan ma may leen dialogue bi bu leen bëgg ñu duggal ko y' a pas de problème mais qu'est-ce que les Sénégalais veulent à la fin quand même. d'accord légui euh, question bi mi tëjee euh, muy Pape Abdoulaye Touré. Euh, du étudiant bo xamanteni gis nañ ci réseaux sociaux yi ni nga xamanteni non lañ ko torturer té ñi ko jàpp d'après information yu jot du gendarme du police jàpp ko dóor ko dóor yi métti ma nga fee euh, euh, euh, principal muy image yu ñaaw ci Sénégal tamit ban ban gis-gis nga am ci lolu euh amna image bu ñuy wane mu sol tubéy bu ñu nee nañ image bobu dafa yag bon je sais pas mënuma wax. non image bobu lu récent la. mooy moy mooy image bi ñu ko ñu ko. mu sol tubéy bu ñuul bi ak t-shirt bi. mooy fi koy dóoree non rek moy li ñu. gis ñu gisuma ay xàcc yatt gisuma ay dara. moy image bi. wa bi dañ la dafa yag seetaan leen ko bu baax image bi dañ ne dafa yàgg jàpp nañ ko mais image bi ñu wane dañ ne image bu yàgg la mais Pape Abdoulaye Touré lu mu def xam nga aussi fekk fekkuma la nga toog rek ma lay dóor yow loolu loolu nit contretemps contretemps boo doxoon ci mbedd bi xaaral ma du ma la fekk nga taxaw dañ ko fekk rek mu toog ñu koy dóor mais quand même yow sérieux Pape lan nga def bañ lay dóor defoo dara ñu fekk la nga toog rek nga ñu dóor ah, la ñi ngeen taal seen i kër lan la ñu def ñi ngeen taal seeni kër lan la ñu def UCAD bi ngeen taal pour lan université bi ngeen taal pour lan kan ngeen koy def Ousmane Sonko wala Macky Sall Ousmane Sonko jàng na la muy jàng liggéey na la muy liggéey encaissé na la muy encaissé mi ngi nii di jël di na ci ay mm, waxam day lay këram ay 9 milliards di ngeen dund ba dee loolu Ousmane Sonko def noonu. doole loolu la ba loolu la loolu la loolu la Mame Mbaye Niang. loolu la ko Mame Mbaye Niang du fen le connais il ment pas li mu wax la wax. Et je pense qu'il s'est posé des questions Mame Mbaye Niang dafa poser aux questions et comment une maison boo xam 300 millions wala ca lay yem ak ay bagaasam nga tay la sa à 900 milliards ak 900 909 9 milliards c'est une question que tout le monde se pose à quoi sert ces 9 milliards là yàgg naa leen wax ne caisse kees bii ñuy def naan booy yee cotisé ba pare ngay jël ay 1000 francs doomi kii pour ces blanchissement d'argent Je ne sais bu leen ñu wax loo waaye bu ñu Ousmane mais dama ne la Abdoulaye Touré qu'est-ce que tu as fait pour mériter tout ça au fond de toi bu nekkee da nga tëdd lalu pose toi des questions. mais ba tey man jàpp nani, ni nani, naa euh, même bu fait quand def àddunaay li ci biir sax euh, Mon nañ ko euh, livrer en police mais pas torturer quoi de ce genre. dégg man la Ousmane Sonko même bu nekkee Sénégal da koo tooñ wala mu bañ Sénégal wala man Ndeye Sow ma taal ko Ousmane ma ma ma def quoi ko warta ñëw taal sama kër Ousmane Sonko lan la ko sénégalais def ba tax mu yéene lii Sénégal ce sont des questions vice versa liñ may poser ni mën naa ko ko mën nga ma ko poser ko mën naa ko posé keneen. dëgg la kooku lan la def bañ def ko léegi nag Pape Abdoulaye Touré moom la mu def lan la ko Sénégalais def ba tax muy def loolu ba tax lii fekk ko si quand même soyons sérieux. VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pips et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 1 06 8 5 2 4 VIP people dal les lay lepp